Nyaritali tali karaté club doon amal tournoi international open de karaté fii planade bu ñaari tali ngir jongante ci walu wowe. ñu àndeen teg ñenn ci organisateur yi ngir ñu andi ci ay leeral. ñaari tali dafay yëngu ci événement euh, surtout ñaari tali karaté club événement yoy dañ ko doon def di def ay démonstration di def comme manam gala mais après bi démé ba xol ni bon ñepp tam nañ lolu. ñu ni nañ indi ben open ben innovation bo xamé toutes les catégories dañ ci participer moo tax ngeen ampleur bi mu am 24 euh, catégories partout au Sénégal même si nous ay ay Guinéens yu ñëw kon déjà Open International bi doon On se dit déjà l'organiser euh, à Niaritali c'est encore mieux que d'aller dans d'autres structures bi nga accès Et quand tu vois qu'une organisation pareille donc pour le sport on le partage avec tout le monde donc avec la population de Niaritali c'est-à-dire que dañ koy jëm a yéegal ci beneen niveau bi nga xam ne vraiment que nit ñi aussi tim ñu xam ñu sentir qu'est-ce que c'est que le karaté dans la population. ñaari tali lu mu indil association karaté kaa yi fii dafa bëri suñu médailles yëpp waa ñaari tali lañu am nañ fi ay champion d'Afrique am nañ fi ay am nañ fi aussi defe naa champion du monde champion d'Afrique bi jigéen la woon am nañ fi tamit ay champion disons du Sénégal yu dul jeex léegi nag lu ñu bëgg tamit mooy ñaari tali génne fii champion du monde. bu ñu yeggee 2022. ay club yu bëri teewoon nañ fa indaale seeni ndaw ngir ñu bokk ci jogante bi tey it di rafetlu bés bi. kontaan bu baax rek ndax euh, lii daa bokk ci li nga xamante ni mooy dundal aar bi tamit mooy tax karaté jëm ca kanam ndax dina dina permettre bi di gën a góorgóor toujours ndax bi préparer compétition toujours mm, day gën a travailler. donc va permettre tamit euh, mettre bi tout euh, mi gëna euh, liggéey ak élève am ndax na ndam ci médaille mu travailler. sincèrement peut-être que dafa comme man suis en compétition donc je les ai un peu préparés donc du coup moo amuñu des problème. j'invite tous les parents tous les parents vraiment à encourager leurs enfants à intégrer les dojos. Hein, que ce soit le karaté, Shotokan, que ce soit le Kung Fu, Viet Vodao. En tout cas, moi je me dis que pour sauver la société sénégalaise, il faudra que les enfants commencent par la base. Et le meilleur moyen, l'un des moyens, c'est d'inscrire les enfants dans les arts martiaux. amal xew-xew Yini mel yombul ba fait na ku ñi ngi andi ay qui ci ñuy bi bari bariwul mais nit ñi dañu bëgg li ñuy def dañu am passion ñaari tali ak ni mu tollu club bo xamanteni sa bu équipe nationale di génn au moins dina fa am ay membres yo xamanteni ni ci club bi lañu ñu ku dégg ñaari tali di nga ni ah ñaari tali vraiment club bu mag la effectivement club bu mag la mais club bo xamanteni amuñu fuñu entraîner ñun ñu momal ko suñu bop amuñu ko. amna na ñoo xamante ci tubaab mom lañuy ñuy ay bonne volonté ci ben bi ñu ne woon daañu jàpp wante ba ñu ba ci chapando bi. ah gisuñu leen wante alhamdulilah yàlla booru mag la ñun ñu sukkandiku si euh, wax dëgg yàlla li ñu yàlla jagleel rek ku ci am sa dërëm rek nga daal di indi ñu daal di bokkoo daal di liggéey. ñu bëri jàpp ni karaté wàllum góor la waaye itam jigéen ñi am nañ ci wàll te ñu ngi ciy wane seen bopp. jigéen laa mais yàqalu ma dara ci sama féminité su ma neexee je me déguise comme un garçon comme tey par exemple parce que cadre sport bi moo ñu koy laaj mais bu ma waree damay nek jigen ñu xamné ni ki jigen la yàqaluñu ci dara man karaté bi ci la nek depuis bima ma âge poussin Pipini ba ma nek équipe nationale ren euh, depuis 2009 ma ngi équipe nationale je suis la capitaine en chez les katadam donc du coup yàqal musuma yàqal dara yàqaluma sama jang yàqaluma sama liggéey yàqaluma sama sama vie en général question d'organisation la question de bug bug parce que quand on est passionné on fait les choses correctement et puis avec l'aide des parents ça passe bien. jigéen ni bari nañ légui ci karaté bi te vraiment loolu lu ñu war encourager la lu ñu war a rafetlu la parce que généralement nit ñi dañuy fagné arts martiaux yi c'est c'est fait que pour les hommes mais on se rend compte que vraiment les femmes se battent dedans jigéen ñi ñu ngi gor lu bu baax té ñu ngi ciy am ndam tamit. tournoi international de karaté bi wa ñaari tali karaté club organisé nek lu am solo rawatina ci ndaw yi ba tax na képp ku ko téwé rek rafet lu ko. organisateurs yi nag di ñaan autorités yi ñu jàppale leen ngir seen taxawaay gën a jëm kanam